istibila mbokk internet yi dal leen ak jàmm tooñ du gàllaaj waaye itam xeex wàññiwul coono li koy firndeel di ab xeexoo bu doxoon ci diggante yu wujju aawa ba jàpp na ñaareel ba dóor ko ba yóbbu ko urgence ba noppi dal di yóbbu boppam ca prison ba coowal wàllu kujjee ngi bëgg bari ci réew mi te buñ ci jógulee dana mujj ëpp loxo ca Touba ab xuloo gu ñu ñàkkal sololoo moo mujjee jur ab jéeya ju ñëpp di ñaawlu aawa bee jàpp ñaareel bi dóor ko ba yóbbu ko l'hôpital bakkanam nekk ci diggante dund ak dee waaye itam mu mel ni ndam li nga xamante ne moom la aawa bi am ci xeex bi moo tax way takk dere daal koy jox ab raaya raaya googu du lenn lu dul ab ticket hôtel zéro étoile maanaam prison mbir ma ma nga xewee ca quartier Sambu Touba moom aawa bi jëf-jëf ji li ko yoon di toppee mooy coup et blessure maanaam doore gu ànd ak gaañ-gaañ ba noppee tegu ci tayeef ci gannaaw ab xuloo bu ndaw ci la aawa bi sant Fall daal di jàpp ñaareel bi le di ko dugaliku di ko dugaliku ba yóbbu ko ardo mbeteek làmb waaw ñaareel ba dem na ardo ma nga urgence ca loxoy waa kër docteur yu hôpital Matlaboul Fawzeyni bu ñu a la ko génne ci àllarba ji moom Awa Falen bi waa brigade de recherche bu Touba dépéré nañu ko au parquet barki démb maanaam altine ji ñu génn gannaaw gi ñu ko téye ay fan ci ab mandat de dépôt jamono ji la def ca xeex ba ak xuloo ba nekkatul moom ak ñaareel ba waaye moo ko way takk der ya ndax ma ngi ca biir prison bu Mbàkke jigéeni réew mi nag war nañu mën a xoolaat seen bopp ndax ku jee moom jar naa dem urgence mbaa dugg biir prison bàyyi nañ leen tontu laaj bi Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal